daal di nañuy doxantu ba Sacré Cœur extension ngir mën a xool lii di produit local yi ak tamit nan la ko Sénégalais yi di dundee ci noonee nañu jàkkaarloo ak Coro euh, Ndaw nekk ci boutique ba di jaay euh, loole di ay produits local Coro di ñu xamal ne lii di consommation locale dafa war a doon lu romb Coro Ndaw di ñu xamal ne produits locaux yi doon na lu mucc ayib te it doomi aadama yépp war nañ cee war a mën di xewlu. consommation locale mën nañ ne euh, pour l'instant ni sénégalais yi kiiwaguñ ko à 100 pour cent jëlaguñ ko à 100 pour cent mais fii nii moom alhamdulilah mi ngi dem ndànk-ndànk wax dëgg yàlla surtout naturel yi mais il faut nga ñëw euh, goûté ko pour ngay soog a waaw céréales yi moom ñu bëri dañuy préféré parce que ñu bëri dañ naan buñ ko jëndee day day am arrière goût genre yooyu. parce que dëgg la sax am na am koy ñu koy defar ñoo xam looloo looloo tax euh, sénégalais yi nanguwuñ ko consommer dañuy préférer defaral ko seen bopp mu bees mais am na ñoo xamante tamit dañ koy defar ba mu baax il faut nga ñëw tamit jënd ko pour soog a xam affaire bi nu mu demee. Coro di dikkaat ak ñun ci li nga xamante ne nii moom mooy politique du chef de l'État Macky Sall bëgg sénégalais di bay ak di ko di dundee it la ñuy bay. day jàppale sénégalais bu baax sax surtout baykat yi daf leen di jàppale bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla te lii ñun mënuñu am lii lu ko ëpp balaa nga koy xam foog nga foog nga foog nga consommé ko pour xam ne lii ñun sénégalais am jaru ñuy jéggaani feneen di fa jële yeneen lekk amuñu lu ëpp lii lii suñ maam njëkk yi ci leen da ci leen doon dund te macha allah santé bi ñu amoon instant bi ñun amatuñ ko foog ñu dellu ginnaaw pour mën a amaat santé boobu noonu